olof yi nee nañu mbaxana bu doon naanu yuur kenn du ko sol ku weddi nag mën ngaa laaj sama kilifa gi toog fii ndax mbaxanaam mi dina naan ak yuur wala déet pour wax rek ni kon kàddu yi xam ni moom laa fas yéene toftal ah, ci kàddu yi xam ne moo fi jëpp du wàññee dara ginnaaw bi ñu tuubalee yàlla suñu boroom ñu ngi dellu di nuyu bépp sénégalais di ñaan yàlla mi xam dara taw ko mu defal nu fan gudd ak wér ak xéewal te musal ci lépp loo xam mën na noo gàllankoor ah liñ fi dajale dafay firndeel rek li olof yi di wax nii maanaam ngembul beñ mën naa yolom waaye du dagg loolu nag bu ma ko waxee li ma ci jublu mooy ñi xam ni ñoo toogee réew mi tey seen yéene musula deñ mukk ci faagaagal kii ñuy wax le président Ousmane Sonko sénégalais yépp jàppoon nan ni réew mi guute gi mu nekkoon deñ na waaye à notre grande surprise gis ngeen li xam ni moo nu dajale fii ndax ñoom doole ji xam ni moom la ñu yor naagu nañ ci ba njort ni maanaam jaanu ñàngoor lañ joo xam ni ku nu buusu maanaam nga gumba ku nu matt nga dee waaye li ñu fàtte mooy am na yat woo xam ni moom la ñuy wax askan wi yat woowu ku musa dal ci sa bopp rek sa bopp toj na loolu nag li tax ma jiital ko mooy le président Ousmane Sonko en personne moo ma wax ni ma waxal Sénégalais yi ni leen man président Ousmane Sonko wàccoo naa ak ñoom la ma war a def lépp ngir réew mi jag def naa ko jamono jii xam nag maa ngi ci loxo yoon réew mi moo des ci bàyyi ma man ak Macky Sall ak ñoñam ñu nërmeel ma ci seen coobaree bopp wa illaa maanaam askan wi xam ni ñoo am souveraineté taxaw beñ li xam ni moom la ñu bëgg a def ci jëme ko ci moom ak mboolem ñu àndal ana lan moo xew monsieur le procureur de la république dafa génn am yu mu wax wax jooju buñ ko seetee ci wàllu yoon maanaam da dul am sukkandikuwaay mu yell kon ñu apporter maam en fait li ñuy wax équilibre parce que yaakaar naa ñu toog fii kenn du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg yaakaar naa ni étudiants yi xam ni ñi ngi def deuxième année nekk fële ci faculté de droit képp koo ci woon mu defal la analyse sorti procureur de la république dina la xamal ni la wax ji amul sukkandikuwaay ci yoon ana lan ci li li li ñuy tàmbalee kàddu mooy affaire bi mu wax ci affaire contumace xam ngeen ci wàllu yoon kàggu yi xam ne ci la ñuy àtteekoo danoo tënk mbooleem loo xam ni dafa jëm ci wàll wu ni mel wàllu contumace article bi ñuy wax 341 moom moo ci moo ko leeral article boobu dafa wax ni képp koo xam ne àtte nan la ci yoon àtte nan la ci yoon te ban lay àtte yow fekkuloo fekk fekkewoo ko ak ci anam bu mën a doone jamono bu xamee ni les force de l'ordre teg nanu la loxo maanaam àtte boobu day daal di naax saay kon procureur de la République bu ñëwee wax ni jàpp gi nu jàpp le président Ousmane Sonko dafa wuute ak li xam ni moom lan doon ko toppee ci contumax loolu dafay jaawale wàllu yoon te comme ni ko sama mag Demba Ciré li waxee sànq je défie n'importe quel effectivement juriste sur la question maanaam kii ñuy wax le président Ousmane Sonko atte bi xam ne moo doxoon digganteem ak ki ñuy wax Adji Sarr te nu condamné ko par contumace jamono ban koo téye ci loxo yoon rek booba la maanaam atte booba naax saay kon loola tënkatul kenn ci wàllu yoon ndax dafa am ci droit benn principe bu sacro-saint bu nuy wax on ne distingue pas là où la loi ne distingue pa or dans le cas d'espèce monsieur le procureur de la République bi mu jëlee kàddu dafa distinguer là où la loi ne distingue pas loi bi dafa wax ni jamono bu ñu la tegee loxo rek maam décision boobu c'est anéanti de plein droit dans tout ses dispositions kon loolu dama ko bëggoon a leeral Sénégalais yi ba mu xam ban xam ni la la woon woon ni na maanaam la mënoon a tee président son ko bokk ci jongante yii nu jëm jàpp gan ko jàpp moo ko nuylal kon loola article L 28 29 30 ba 57 liyeetul maanaam kii ñuy wax la personne de Ousmane Sonko mënatu koo nekk tey nekk candidat ci réewum Sénégal gi mun sukkandikoo ci kaggu yi xam ne ñoo ni àtte ci wàllu yoon. bu loolu wëyee ana lan la lan moo fi beesaat lu nu wax ci procureur daal dafa wax ni kii ñuy wax président Ousmane Sonko depuis 2021 dañ koy tuumaal li ñu wax appel à l' insurrection. appel à l'insurrection ci sunu wayjur yi xam ne ñu ngi toogee ci sunu kër yi dinu nu diglu nan xam ni mooy woote boo xam ni danga ko koo woote ngir nërmeel réew mi xam ni moom la nu nekk son Sonko ndax li mu woote woote buy nërmeel am réew la wala déet ci wàllu yoon loolu tuddul maanaam li ñuy wax nërmeel am réew la constitution mooy ndeyu charte réew mi xam ni ci la ñuy ko moo wax ni yéen sénégalais yi jox naa kenn ku ne ci sañ-sañ ci yéen kenn koo xam ne nii yëkkati nañ fitna jëmee ko ci yow am nga sañ-sañu aar sa bopp moom la ni wax droit à la résistance loolu la woote te loolu ndey charte réew mi moo ko moo ko waajal kon bu gëlëmal askan wi ci di invoquer ay dispositions yoo xam ni walla ay concept yoo xam ni dëppoowul ak li xam ni moom la kàggu yi boole ëmb li wóor mooy appel à l'insurrection kenn mënu koo toppee maam kii ñuy wax maam le président Ousmane Sonko waaye ndey bu fekkoon sax ni àtteekoo ci dëgg kon ñu ni waaw ndax réew mi kenn ku ne xam na ni réew mi réew mu maanaam am jafe-jafe la ci wàllu yoon li ko sabab mooy wàllu yoon dafa war a tëddee njaaxaanaay yaakaar naa ñi toog fii ñëpp mën na noo seede ni kii ñu wax maanaam Cheikh Tidiane Seck yaakaar naa ci parti bu maanaam parti social ci la bokk wax na fii ci réewum Sénégal ñëpp di dégg wax joo xam ne nii loolu bu ñu doon définir maam li ñuy wax appel à l'insurrection foofee rek la ñuy sukkandiku waaye le président de l'association des maires du Sénégal monsieur Ba mais ñëw na fi wax ni candidature président Macky Sall bii maanaam bu fekkee mënul am le pays sera à feu et à sang mais yaakaar naa bu ñu dee wax au du point de vue conceptuel maanaam appel à l'insurrection foofu lan waroon su kon ana lan moo sabab ñi xam ne dañoo féete ci nguur gi bu nu waxee wax yu ni mel ñooñee ñu bàyyi leen kenn du leen topp dara ki ñi xam ni dañoo fare ci Ousmane Sonko ak jëmmi boppam moom bu nu waxee ci lu nuru lu ni mel wala sax loo xam dëppoowul ak lu ni mel maam ñu arrêté leen téye leen maanaam jébbaleen wàllu yoon loolu liñ ci bëgg leeral mooy askanu Sénégal lañ bëgg a xamal ni leen réew mi xam ni moom la ñuy atteekoo maam dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey te loolu maanaam procureur de la république moo ko wane démb ci kàddoom ñu bëñ ñi fas yéene ko maanaam leeral ci ci askan wi loolu mooy ñaareel bu bu poñ bi bu loolu wéyee ana lan moo nu dajale aussi mooy kenn ku ne xam na ni Ousmane ko incha allah suba la war a taxaw jàmmaar jàkkaarloo ak ki ñuy wax maanaam le doyen des juges may leeral Sénégalais yi ci loo xam ni kenn du ko dindi infraction yi xam ni ay crime la ñu maam visé ko jëmee ko ci moom te xam ni amul benn cëslaay ci wàllu maanaam luñ mën a téye luñ mën a téye ci wàllu maanaam élément factuel mm-hmm. kenn ci si juriste yi fi toog yëpp xam na ni amul benn sukkandikuwaay boo xam ni mën nañ cee sukkandiku ngir articuler une quelque quelconque crime contre Ousmane Sonko mais ma ni loolu xam ni wax nañ ko yëpp maanaam jëmee ko ci usman son ko mayul benn yoon juge bi juge bi xam ne moo ko war a diglu maanaam mu bàyyi ko mu ñibbi këram bu fekkee yoon rek ci la ni àttee ko li muy firi mooy jamono bu taxawee ak juge bi juge bi dina def application des disposition des articles 129 139 du code effectivement donc de procédure pénale loolu nag maanaam liñ ci jublu mooy xamal ni askanu Sénégal jot na sëkk ñi war a wax maanaam wax ñi war a taxaw taxaw ngir ñu moytu dugal sunu réew mi ci guuta ci loo xam ne nii tegul ci benn sukkandikuwaay réew mi ku ma am ndey moo fi am ak ku ma amul ndey man mii di wax ak yow say xam ma sanax bu ma génnee du ma arrêté ndax man ko weex dungu laa jamono bu ma yëkkatee addu ah, jamono bu ma yëkkatee kàddu maanaam wax lu jëm ci Ousmane Sonko ak ci lu koy aar sukkandikoo ci li xam yoo xam ne mooy wàllu xam-xam bi xam ne moom lan ñu tàggatee gën te jógee daanaka maanaam dootuñu am jàmm kon nag lii moo taxoon maanaam ñu ni nañ yëkkati suñu kàddu ngir leeral askanu Sénégal ngir ñu xam dëgg-dëgg maanaam li xew parce que nag maanaam Serigne Touba dafa bind ci benn téere wax ni maanaam aw fen lu mu rëy rëy ci detteelu la jëm waaye dëgg lu mu sew sew ala kuli aal day mujj daal di maanaam fàng ci kanamu ñëpp. looloo taxoon ñu ni yàlla na ci réew mi ci jamono ji xam ni moom la ñu toll kenn ku ne am jiixi jaaxa ci soxol xol maanaam ñu ne nan leeral askan wi li xam ni mooy dëgg. te wax jii ñuy wax nii jëluñu ci kenn seede ku dul yàlla suñu borom waxuñu ko ngir par parparloo ndax Ousmane ko doomu aadama la ñu ñun gënuñu ci dara. waaye njort leen bokk tan boolenu mooy réew mi xam ni mooy Sénégal ñu njortu ni deful lenn lu mën a tax ñu xañ ko lu ko tee bokk ci élection yi waaye ñu gis ni dañuy utiliser maanaam maanaam jëfandikuwaay yi xam ni maanaam état am na ko ak wàllu justice ngir ndërmeel ko te loolu dam ja maam tàmbaleewul tey maître Bamba Cissé 1960 ba fii may wax ak yow mboolem ku réew mboolem ci réewum Sénégal képp ku mës a am taxawaay bi nga xam ne Ousmane Sonko am nga ko maanaam justice ak maanaam réew waa réew mi ci ñi ko ŋànk ci wàllu yoon tënkoo nañu ba nërmeel la loolu jërul ñu di ko ñu ci sori jëlal l'exemple du professeur Cheikh Ahmed Cheikh ante Diop mais noonu lañ ko def le le président euh, Mamadou Dia mais noonu la ko def te kat wolof yi ñoo léeb wax ni ku ndëmin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw waa maanaam Pastef ak ñi xam ni dañuy taxawu dëgg ñoo yey di wax ñoo yey di alerte ndax fa nu jëm du fa te bu nu bàyyee ba nu dugg foofa musiba mën naa àgg ci réew mi lii lan bëggoon a leeral askanu Sénégal lu ci rafet maanaam yàlla la lu ci ñaaw sunu matik doomu aadama moo ko waaye li seen yéene maanaam mooy leeral li xam ni mooy moo mooy actualité fii ci réew mi may dellu di tuubaat ak jégglu sama kilifa yi xam ni ñoo fi ne woo koolu teef tax ñu jox ma kàddu ngir leeral askan wi ci wàll bi xam ni moo nu fi dajale wasalaatu wasalaam